ci dalal bi nga ñu dalal fii ñu ñëwoon ci turu njiitu réew mi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak ci coordination premier ministre Amadou Ba ak mbooleem membre gouvernement bi ak service su état bi waaye ànd teew ak ministre d'état Augustin Tine ànd tamit ak madame euh, Victorine Ndeye mi yor wàllu microfinance ak monsieur Pape Sagna Mbaye mi yor ministre wàllu napp gi ak monsieur Samba si mi yor wàllu liggéey bi ñu ñëw fekk fii gouverneur wu Thiès préfet wu Mbour ak sous-préfet wu Sindian bi ñu ñëwee tamit fekk nañ fi ay mbokku député fekk fii ay mbokku haut conseiller maire wu Popenguine dalal ñu bis bi ñu ñëw tey ngir bokk ko ak fidèlu chrétien yëpp ci njiitalu monseigneur Benjamin Ndiaye waaye ci teewaayu évêques yi prêtre yi nonces apostoliques yi waaye ñi représenté kilifa diine yi nekk ci Sénégal yëpp ci gox bi ak association des imams et oulémas bis bu rëy la xam nañ ni bis la boo xamante ni bi mu sosoo ak léegi ëpp na un siècle muy 1887 bi ko monseigneur Picarda xalaatee ak ni gox bi tëddoo mu defoon ko bërëbu aj boo xamante ni dañ fiy ñëw di sargal Marie thème ren bi ñu gis ni tem bu am solo la mën a indi njeexital yu bëri ci suñu diggante yi ñuy waxtaanee waaye tamit ci li nga xamante ni moo ñu fi dajale te bàyyi ñu fi may tënk ci lu gàtt ci solos waxtaan ci suñu biir waaye solos li nga xam ne moom la ñu fi maam bàyyi woon muy suñu aada te naka jekk loolu la xamoon muy yar teggin ak jàmm ci suñu réew ñu am ci ndono lu rafet loo xamante ni suñu kilifa yi ŋànk diine ji ñu ngi koy wéyal ba tey ñu mën cee lim monseigneur monseigneur Benjamin Ndiaye mi teew waaye mën cee lim bépp kilifa bu yore wàllu diine fii ci Sénégal loolu nag li koy lal mooy waxtaan li koy lal mooy li tubaab di wax dialogue xam nañ ni le premier président de la République du Sénégal dëkkoon ci région bi muy Léopold Sédar sengor dafa daan wax ni le Sénégal est un pays de dialogue dialogue boobu nag li koy lal mooy yaatal li koy lal mooy ubbeeku li koy lal mooy rafetal jëmalee ci sa moroom loolu moo tax président de la république son excellence Macky Sall musul jóge bi mu nekkee ci bopp réew mi ak tey di ci tàllal loxo képp koo xamante ni yaa ngi set Sénégal ba fekk si ko ci nit ñi léeg-léeg dañuy am sikki sàkka wala di am xel ñaar ci wàllu dialogue yi nga xamante ni son excellence monsieur monsieur le président de la république Macky Sall da koy woote waaye dañuy wax nii lu ni fang kenn du ko jeex te mu ngi nii moom képp koo xamante ni yaa ngi bëgg a gis wala xool nga di nga ci teg sa bët damay joxe exemple boo xamante ni mooy dernier dialogue bi mu fi woote woon dialogue boobu moo tax ñu am ay avancées yu rëy ci wàllu sax ni ñuy faloo ci Sénégal ci wàllu maire pour jël exemple boobu rek bu njëkk ba suffrage universel indirect la woon dañ ku nekk da ngay indi pour compétir mais bu ñu falee ba noppi conseil municipal bi mooy fal maire waaye ci dialogue ak waxtaan ci la opposition bi ñaanoon. Euh, majorité bi ñaan ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ni dafa bëgg léegi élection yi doon suffrage universel direct looloo tax élection yi ñu jugee te ñu soppi code électoral bi ci juillet 2021 te yàlla defoon man maa demoon assemblée nationale di ko défendre 28 points yi ñu d'accordoon entre opposition ak majorité foofu lañ ko jëmale woon te poñ bu am solo boobu di fal maire ci suffrage universel direct ci waxtaan ci la juddoo woon donc waxtaan moom la ñu xam ci Sénégal moom la ñu baaxoo kon maa ngi wax moo monseigneur Benjamin Ndiaye ñu ngi rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante ni yaa ngi koy def ci bokku église u Sénégal di ko def ci ndaw ñi ñuy rafetlu seen engagement jëmale ko ci seen diine te loolu jaral leen ñuy doxee fu sori ba yegg si fii mu nekk une démarche de fois loolu lépp nag li ko laltaay mooy am yar bu baax. li ko laltaay mooy am ndono lu baax li ko laltaay mooy ñu jaarale leen fañ leen war a jaarale ci biir kër yi waaye tamit ci lekkool yi loolu mooy li nga xamante ni buggoon naa ko partager ci réflexion humblement ak mbépp mbooloo bu fi teew di leen sant di leen gërëm